xidmal mi de moom kontaan ci rek ak euh, sant yàlla ak yónnent bi sant Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh Ahmad Ndiaye ah, di leen ñaanal yàlla nag lu ngeen mën ren bu déw ne yàlla na ngeen mën la ko ëpp kontaan nañ bu baax li ci tegu mooy ñuy ñaanal suñu maire bi yàlla naa ko euh, yàlla oyofal yéen bi lu mën ren bu déw ne yàlla na mën la ko ëpp parce que nit ku baax la nit ku jullite la nit ku am dal la nit ku yemale ñëpp la ah, daaw la fi commencé am ak ren de defe naa ne ren sax moo dàq daaw moom daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen mun ren bu deew ne yàlla na ngeen mun lu ko ëpp yàlla na leen yàlla yéen ak seen kilifa yi ci kaw ak borom télé bi tam yàlla na ko yàlla yokk parce que moom it ku bëgg kolobaan la lu fi xew rek gis naa ko fi mu indi fi télé bi. yàlla yokk ko ubbil ko buntu baawa xari musal ko ci cat ba li muy yóotu mu jot ko ñun ñëpp ñu xaj ci lu ba muy def boobu amu ma jotagut lii da daan liggéey ci doolam di ñu ko jox. ñun arrangé nañu loolu ndax man borom kër laa su baa ngoon may def sama dépasse su kër. nan nga gisee ndimbal bi. ndimbal li moom baax ma trop yàlla na yàlla dool di xéewal rek ba loolu gën a yokk li mu yóotu bu teg ki loxoom nañu yaakaar ci moom xam naa lu mu am fu ne fii la ko jëm si ndax Colobane rek ko ñor ak njabootam. di sant yàlla bu baax yàlla mi ñu may ñu fekkee woon ko daaw def ko mu réussir ñu dellu siwaat euh, ren defaat ko ñu am ci sentiment de satisfaction waaye am ci mbégte lool. ndax dañoo nekk ci weeru koor am ay ndaw yu jóg yoo xam ne ça plus de douze ans ñu nekk di œuvrer ci euh, ndimbal askan wi ñu doonoon ñi kii doon yëngatu ci wàllu culture ki daan yëngatu ci wàllu sport ñu boole seen doole boole seen i partenaires àndandoo ak partenaires yi di ñëw di jàppale askan wi ya àdduna di dox nag ba Colobane bokk ci daaw ren ñu ñëwaat feddaliwaat ko partenariat boobu pour jàppale waa Colobane ci ndimbal yi ren ñu ngeen gis ñu étaler fii euh, ay kit yu bëree bëree bëri pour population bi ñu toucher une bonne frange de la population ci ñi nga xam ne am nañu ay néew di doole ci ñi nga xam ne ñu soxla nañu ko yéew lool waaye ci ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ay boroomi daara lañ ñu dolli ci it yokk ci defaral ñu fi benn daara ak benn mosquée boo xam ne fa mu nekk ay nit ñuy ndaaru nguy la ay nit ñoo xam ne dañuy daan seen doole waaye di jaamu yàlla soxla ku leen dimbale ñoom ñu ñëw à notre secours li nga xam ne manqué nañu ci côté sociale ba ñu ñëw jàpp ci kon damay def lu dul di leen sant bu baax di am mbégte lool ci bis bi nga xam ne mooy bisu marmite du cœur bi. du question militant ak militante man ku ma xam-xam ne man ci équité lay dox ñoom ñëpp xam nañu ko tey list bi ñu génnee ñi fi ñëw ku leen xool sax xam ne euh, couche yi nga xam ne ne yéen la woon nañu lii ñoom lañ ko jox. ndax yàlla mooy séddale te yamalewul doole yi euh, am na si ñoo xam ne ay veuve lañ dañoo ñàkk seen borom kër nekk fi am ñoo xam ne dañoo doon ay jigéen yor yor seen kër kenn dimbalewu leen am ay borom kër góor lañ mag lañ mënatuñu seen amuñ doom yu leen matalal yu leen jottali ñooñu aussi dañ ko soxla donc am ñoo xam ne ay ay bor ay kilifa diine lañ dañoo am ay daara dañoo yor ay ndongo dañuy am ay ñit ñuy nekk si kër yi ñooñu dañoo soxla kit yi donc choix bi ci loolu lañ ko def te xalangu dajul suuf lépp matut ñu fi mënoon indi dëkk bi euh, foo xam ne féppay metti la waaye fi mu gën a méttee am na lu ñu fa dugal euh, te ñun aussi ci li nga xam ne mooy suñu wàll ci mairie am na loo xam ne def nañ ko muy le côté social ñoom it biñ ñëwee dañ ñoo teg loxo ci beneen côté mu jëm ci wàllu ñi nga xam ne moom lañ jàpp ne ñooy le plus nécessités. en tout cas je veux pas trahir un secret <laughs> parce que xam nga comme ñoom ñu ngi ci ay domaines ñu ngi ci social tey waaye kenn ku si nekk am na ci looy yëngu. te ñun aussi te loolu ñuy lëngu ñun la ñuy yëngu ñun aussi dañ cee nekk euh, di ci jàpp bëgg see jàppale suñu askan. kii mi ngi yëngu ci wàllu culture kii ngi yëngu ci wàllu sport te ki ku wax jeunesse wax sport wax culture ah ma am ay dates yoo xam ne prévoir naa ko ay festival du Signy ay coupe du maire te ñoom ñuy yëngu ci loolu kon ñoom aussi dama leen ciy woo pour que ñëw teg ma loxo it ci côté boobu comme ni nga xam ne gisee naa leen ko ci marmite du cœur ci social bi. bu ëllëgee it ma àndaatee ak ñoom ci su may def festival di signé àndaat ak ñoom ci su may def coupe du maire su may ak ci jeunesse bi vraiment euh, partenariat boobu laa bëgg a développé ak ñoom. waaw salaamaaleykum ñu ngi am mbégte yëkkatiwaat ay kaddu kàddu yi déjà à l'entame tàmbali bi kaddu cant lay doon lu tax kàddu cant lay doon ndaxte ñu ngi ci weer wi gën ci weer yi ndaxte suñu borom ci la daxañ bës bi gën ci bés yi muy laylatul xadr ñu nekk ci weeru koor. weeru koor àdduna bi yëpp wërngal këpp xam ne lu ci waaye def sa bopp nga ko defal donc sentiment bi ñuy am ak yëg-yëg bi ñuy am saa yu ñëwee fii sentiment wu fii lañu bokk la ndaxte Alassane ju ñu ne ko léegi moom bi ñuy ànd ak moom xëy na suñu borom teg joxu ko nombo yi joxu ko lenge yi ñu ànd ci yërmande mu am jikko boo xamante ne dañ koy gis mu melokaanoo jikkoy picc picc mooy gis lu baax lu mu gis rek for yóbbu ci tàgg bi donc bu ñëwul woon si ñun du ñu xam fuy kolobaan du ñu xam fuy signé dafa ñëw wax ñu ne ñëw leen lii ngeen di def baax na mais bëgg naa ngeen def ko suñu gox kon bu ñu àndee ci noonu muy ci dëgg yàlla suñu borom mi dara tewul dénk ko dara mu ñëw dëgg bëgg a feddali koloreem ak Marmite du Cœur kon loolu tawféex la ci ñun ñu àndandoo ko nag ak population bi parce que dama koy faral di wax loxo bi joxe loxo bi nangu rek am te kiy joxe gërul yi nangu donc moom dañ koy ñaax moo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ko teg fii kàttanal ko na na yéeneem ak dooleem ak xelam ak xam-xamam yëpp nekk ci population bi. Mm-hmm. dafa am solo kon dafa am loo xam te ne dañ ko bokk Marmite du Cœur daf ko bokk ak moom. Mm-hmm. au delà de ñëw bi ñu fiy ñëw won nañu ne mi ngi ci social lu jiitu lii. kon loolu tawféex la ànd bi ñu àndandoo seeti population bi parce que ñu jar jàppale lañ mm-hmm. équipe bu Marmite du Cœur bi nag ñu ñëpp ay ndaw lañ te ko fii Sénégal jëm Marmite du Cœur day doon vitrine bu war a wax ak askan wi bu war a wax ak ndaw yi ci langage boo xam ne dañ koy comprendre ndax te jëf moo gën wax te ci jëf lañ nekk jël mbir yi leel ay nit ñoo xamante ne waxuma sax ay miskin wala ay néew di doole mais c'est des personnes qui ont besoin d'accompagnement ay nit yu soxla ñu jàppale leen la parce que yombul donc euh, da gis ne dafa am fu ñuy daje li ñuy wax point de convergence donc foofu la ñu daje ci yéene ci pas-pas ndaw ñooñu nag ci suñuy action rek lañ ñuy xoolee ndaw ñi parce que Marmite du Cœur muy man muy Alassane dañoo initier loo xam ne ñoo ko jëkkee def fi Sénégal nit ñi xool ko roy ko parce que jëf ju baax dañ koy xool roy moo tax visibilité bi am ci biir kàddu itam dañ gis suñu langage ak suñu waxtaan ak ñoom mënta génn ci ñu delloo si les valeur yu am solo muy ngor jom fulla fayda kersa worma sutura yooyu dafa am solo te ci à travers vitrine nomade bi du cœur ci yooyu lañuy waxtaane waxtaanee ndax ci loolu la ñuy daje tey ñun ñu koy joxe gënuñu ñi ñu koy joxe suñu borom la neex ci kattanam ak mbaaxam rek te du sunu ñàmbaar du sunu ngóora parce que guddi gu bët setagul la àdduna lañ nekk te àdduna amul solo àdduna kenn du fi dara dara du fi dara muy man muy monsieur le maire muy Alassane muy keneen kereen ñun ñëpp a yem donc am taalige bi mooy mooy dëggi dëggi Pastef pas bi mooy nañu ànd ci suturaalante ci malante ci jàppale parce que nit dina toog am soxla ñaari junni tàllal loxo suñu borom ñaan ko ko suñu borom may la war laa may ñaari junni may la ñaar fukki junni boo gàttee xel da ngay defe ne lépp yaa ko moom mais yow soxla yi ñaar ñaari junni nga amoon kon leneen lim la ci toftalal da nga ko war a bokk ak nit ñi kon état d'esprit bi foofu la war a nekk mooy li ñu am lu waay am ci àdduna bii da nga ko war a bokk ak nit ñi parce que loolu rek mooy suñu mooy lii dafa war a sax mais dañuy bëgg nit ñi di ko xool di ko roy ba marmite du cœur am ci quatorze régions du Sénégal yëpp marmite du cœur monsieur le maire saxal ko fi par un concept bu ñu demee mu continuer tout le temps di am parce que loolu mooy yéene bi ñoom am soxla nañu ko parce que du moom rek moo man waaye mair rek mënul il faut population bi ñëw jàppale ko ànd ak moom gunge ko parce que nit boo ko boo ko boo ko yenee ba pare da nga koy gunge te ñoom sas nañ ko yen nañ ko mais moom il est ouvert ah ñun ñëwuñu fii parce que parce que ñun ku ne la ñuy gis ku ne la ñuy jaxasool mais état d'esprit am moom neex nañu parce que gis nañ ci moom jikkoy Baye Fall te bu ñu gisee ci moom jikkoy Baye Fall dañ koy téye parce que ñun ay Baye Fall lañ donc loolu mooy xam nga jàpp bi l'oubli de soi pour les autres nit kuy fàtte sa bopp pour ñeneen ñi rek jikko woo nga jikkoy Baye Fall te loolu am na solo